bu jógee ci suñu bu rëy la. waaw moom ñu kenn ko laaj ndax gis nañu carte d'identité la. ah waaw. wane na ko. seen carte d'identité la. wane na leen la. Sénégal la la mujjee daal. waaye ci biir yëpp. tey fi nga dëkk nga daal loolu moom Sénégal. waaye fi nga dëkk yëpp. donc maa ngi loo yàq maa ngi loo. Lex. Lex ñu ngi lay ziar. delloo ziar. tey tey tey tey li nga ñëw rek doy na wax dëgg may teg de. waaw c'est normal. comme xale laa moom nekk ci ay loxo. lépp lu ñu ma diggalee dama koy def. ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu jël sant seen ñaari waajur di nuyu président Gora Ndoye di sant promoteur bu baax a baax. Magal maa ngi koy sant di ko gërëm. sant Abdoulaye Ndiaye doomu Pikine maa ngi sant ñëpp njaga caaw soo maar lay di sant ñëpp moo tax ndax ma làmb ji lox ma sonn ci ah. xale jigéen ñi jaay keneen ci kaw tali bi ci kaw stade bi ah. ñoom laa koy bëree lu damay gis lu ñuy def ni mm. ñuy sonnee bu ñuy jaay ay puusal yoon bi ay puusal a soof moo tax loolu lu ma ko gis vraiment bëgg sama yaay mooy fonk jigéen loolu ñoom ayca ñu koy yaasi yaasi. oui salaamaaleykum alhamdulilah bisimilah ina waani yàlla ñu ngi sant yàlla di julli si yonante bi di gërëm suñu ñaari waajur. di gërëm waa commune Bambilor bi yëpp. ak CAPC bi département Rufisque bi. ñooy gërëm ñëpp xoolal waa gërëm waa Bambilor. ak tundu jandeer comprendre nga li ko dalee Bambilor gorom 2 gorom 1 Béer kër Mbir Ndaw kër Seega kër Yaaxam kër Gilaay ba kër Moussa ba cinquante ñëw jël ay Béer Daara ñoom Kayaar comprendre nga ay Mbijam ay kër Mbir Ndaw ay Jandeer yaa ngi dégg bu baax ñëw Sangalkam Bambilor Njaxiraat yaa ngi dégg Noflaay ah Ñaaxurab comprendre nga kër ci mbiri déeni géej kañak mbëtë ñooñu ñëpp per man du ma mbëru quartier man mbëru gox laa ñooñu ñëpp maa leen woo si combat bi di woo waa Bambilor di sant tamit gars yi ma àndal ñëw quoi tamit muy Fallou Gueye xam nga Abdou Ndiaye Ndiaga Thiaw moo ma indi si otoom ay birima am bay di Ndiaye sama mafia bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax Pape Gueye. am eh. daa taxaw nee nañ boo ñaqee rek da taxaw sa taxawul noonu la de man da ñaqaguma moom. noo moom jëfu mbër bu ndaw rek jëfu xale. jëfu xale mooy lan non ma ko de mais dama nekk xale nekk ci équipe bu baax. Mhm. sama papa Zil Balde ëmb ma Ama Balde gars ëmb ma moo tax man la jëfu xale. at bu ne far damay ñëw. wala te daa ni moom ñëw kan la sax. waaw doo ñëw fekk lu wow rek ñu lu neex. gis nga bëre bëre man xam lu ma ko jàppee julli geewee bëre julli geewee laa ko jàppee reer julli ak julli reer yëpp yàgg-yàgg julli moo tax bu at taxul reer mucc kon yàgg-yàgg dañ ko fay fay ma dañuy bëre si kàttanu yàlla man moom hmm. ay du ay stratégie de yàlla mi ñu tiim xam na ne bu sible sifflé barki leeru alxuraan maa ngi si kaw gan gi bu arbitre sifflé may ñëw billaahi wallaahi watalaahi te kii bu ma dalee si kawam dina xam ne mbëru bàyyi wax baaxul maay gërëm sama grand soxu koñam la dëkk soxu maa ngi koy gërëm bu baax am na lu mu jot a def si man. baal jàmm baal jàmm loolu dëgg la balaa mu ci taxawee kenn sama mag la sama mag la sama deret la balaa mu ci taxawee ba mu ba avant ma wax combat bi lay ne ma am am nga combat sama xarit ngay bëre mais loolu ci dara parce que Serigne Sall loolu ci dërëm du ma ko si jàppale lenn sama nit la gëmuma loolu man sport laa gëm. soo mag mu bokkal ndey ak baay bu faraloon kii concerné ma man américain laa man américain laa man américain laa tam man waxuma pour jaxase kaa soxu wala dara soxu yàlla mi ñu tiim xam na ne gëj nañ déggante mais sama mag la kii nii dafa barki Serigne Saliou dafa bokk si man si làmb bu ma bëggee làmb moom moo tax xam wax sa waaxu mbaay du wàññi sax mbaax dara soxu man sama idole la si làmb barki leeru alxuraan Bambilor gis nga ma nii damay bokk ak yaa ngi dégg bu baax moo tax tey jii nii yàgg na maa jël si Bambilor ak oto ñuy dem di entraînement ji si dégg waaw kon tey jii dama koy sant mais neexuma moom la faral de sooku dama koy sant de chef la mais Lenx li ma woo war naa ko arbitre bu soufflé damay ñëw kii damay dal ci kawam te yàlla bi ñu tiim xam na ne bu ma nee rës si kawam benn jooy laa koy jooy benn jooy kan lay dóore ay léeg-léeg la xalaa at dëkku dóor at yow way moo ko tasoon di waaw ah góor la may góor kii dina ma dóor te du ma fayu barki Serigne Touba kii du dóor du songu du bëre xamala lay mujjee apare booy bi dalaa waaxu barki Serigne Saliou Mbacké gis nga man mbëru gox sa waay man du ma mbëru ñi ma daan boppam duñ wax la moo tax hmm. waaw lii wax la mën na wax ba suba garaaw mën na wax ba suba mais bu arbitre sifflé waaw barki laay laay laay du taxaw. nee du taxaw. du taxaw. première bi ñu njëkk a gisante dañoo ah. gisante mu am lu ma wax. Ah. mu am lu ma wax bis bis baa na jëf na dëggal boppam ci loolu rek. bu dëggalee boobu ci loolu day nekk làmb ju làmb ju neex. dañuy bëree ba ba pare ma daan ko promoteur bi tëggal avance am si arène si làmb ji la koy jotee. xam ndox loolu. xam ndox loolu ah. day nekk làmb ju neex làmb xale la moom mën na maa mag mais làmb xale la. làmbu xale la. la nga waxoon yaa ngi ci ba tey wala. geen la nga ko man lu ma wax dama si delluwaat. talpa da doon bëre ak soq bu ndaw ma ànd ak talpa talpa combat Bambilor la ko paree sama mafia la sama geen la. ay Cheikh Tidiane ñaa ay aada booy bawol maa ngi leen di sant Bambilor lañ luwee néeg fa lañ fekk léegi yaa baax mu ñëw ma talpa man ma ñëw tibb si suufu bi di ñibbi yaa may dégg bu baax. gan gi kopas ma ma tourné yàlla mi ñu tim xam na ne bu fekkee jour boobu laa koy soo gis xaw ma ne woon mooy lenk sa saace séance sama benn gayan maa ngi koy salué mu ngay bëral bàyyi ko si ne ma gayan dinaa la teg lu metti dinaa la teg lu metti ma ne ko góor yàlla man du ma teg lu metti sa waay man du ma ragal man lay yaxi si ñaay bi laa dëkk man Bambilor laa dëkk si àll bi man du ma tàppet man la lenk si barki Seydina Mohamed bar yow yow yoroo kanamu góor yàlla sax yow bu ma la jàppee dinaa la tegloo àttal. eh non garaawul li muy def garaawul bu ma dóoroon sax barki la. ay jëf am na solo am na solo wooteel. comme nag di woo waa Pikine yëpp ndax ñoom laa am di woo waa Waalo waa Ñiil di woo waa Casamance di woowaat waa Pikine di woowaat woowaat waa Pikine di woowaat waa Pikine ñoom xam nañ li may wax di sant Yàlla Cissé. sant Mbale sama mag di sant gaa yëpp di sant gauche droite gauche droite maa koy sant bu baax di santaat Samba gise sama papa sama patron Moussa Fall ñooñu aw seen fay di sant ñëpp di Jamin Nourula aw ma fayam Jamin Nourula benn bolog bi la ma jëndal jour ba lamb yi taxawee la ma wéyoo xaalis bi ma jënd bi pour ma fay bi bi. di sant gars yëpp barke Serigne Saliou Mouranta bu ma limee damay jum nag maa sant suñu waa écrit su mel ni Zil Balde sama papa sondeel sondeel ma ndiw ci yow pour jaay yëpp di waxaa ni làmb ji ah. xale jigéen ñi laa koy bëri ñuy jaay kereem ak café Touba Babacar Balde maa ngi lay nuyu waaw maa ngi woo sama yaay di ko ñaanal wér maa ngi woo sama yaay di ko ñaanal wér di woo sam papa nga di woo sam si combat bi man sam papa artiste la man Bisaan Ngom bi way taaru Sénégal moo ma jur yaa ngi dégg man doomi man sëtu Ndey Ngom Bambilor laa yaa dégg bu baax ndi ku cun bi way làmb ji sama bàjjen la Panjaga bi doon way Boy Niang keroog sama doomu ndijaay la Boy Niang sama frère la barki alxuraanul karim billaahi wallaahi wa tallaahi yaa dégg bu baax maa ngi woo waa commune Bambilor bi yëpp maa ngi woo waa commune Bambilor bi di woo quartier yi di woo monsieur le maire nga Diop agent terrain man mairie laay liggéeyee man bu dul làmb damay liggéey bu dul làmb damay liggéey man damay ñàkk a dundee. comprendre damay woo man pareegu ma man ñi ma woo dafa bëri non non. maa ngi woo monsieur le maire dañ